asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi dal leen ak jàmm ci taamulaat fi kitaabi taqdis al ashxaas fi lfikr suufi ñu ngi woon ci géej gi nga xam ne mooy géeju waxdatul wujud ak littihaad ak xulul di géej goo xam ne géej gu xuut am lëgg la tey nag ñu ngi tiim ay baat yoo xam ne ñi nga xam ne ci waa tasawuf ñoo gëm xalaat yii di xulul ak littihaad ak waxdatul wujud dañ koy jëfandikoo te ñu war koo xam nga xam ne mu ngi nekk ci page bi di quatre cent soixante dix baat yooyu mooy aljamcu walfarq cheikh bi xamle ko nii mu ne ama ibaratu aljamci fa maanaahu indahum shuhuudu alxaqi bila xalq walfarqu huwa alixtijaabu bilxalqi an alxaq baat yi ñuy jëfandikoo ci wàll gi bokk na ci baat bu ñuy tudde aljamcu nga xam ne mooy nga gis borom bi tabaraka wa taala ci àdduna bi yépp ak ci lépp doo gis ne mbindeef mu ngi fi beneen baat bi di alfarq huwa lixtijaabu bil xalqi an il xaq mooy nga gis borom bi tabaraka wa taala waaye en même temps nga gis tëm ne ay mbindeef a ngi fi yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo leen bind loolu pour gën koo mën a leeral ki nga xam ne dafa nekk ci tasawuf te gëm xalaat bi di waxdatul wujud moom day gis ne dox bi nga xam ne mu ngi koy dox jëm ci li muy sàkku te mooy waxdatul wujud pour mën a yegg ca daraja yu kawe ya ca biir waxdatul wujud dafa am ñaari mbir yoo xam ne daf koy gaar léeg-léeg day gis ne lépp lu nekk ci àdduna bi ci ay mbindeef suñ borom tabaraka wa taala moo ca feeñ su ko defee mu gis ne kon am gi yëpp wala àdduna bi yëpp lépp lu fi nekk rek lenn la amut ràññeele diggante kii moo bind wala kële mooy ki nga xam ne moom moo bind te loolu la ñuy tuddee aljamcu di boole su ko defee buy dox ba mu yàgg niir woowu day daa di yëkkateku mu daa di gisaat ne ah aji bindkat ak ay mbindeef yépp am na su ko defee ñaar yooyu daf koy faral di gaar loolu tax alqushayri ak alsharif aljurjaani dañoo wax ne ann aljamca walfarq laa budda minhuma lil abdi ñu ne lii nga xam ne mooy jamcu ak farq comme ni ma ko xamle woon faawu jaam bi yooya nekk ci moom ñu ne fa inna man laa tafriqata lahu laa abu laa ubudiyata la koo xam ne amut teqale maanaam di gis yàlla di gis mbindeef ñu ne kooku amut ak jaamu niki noonu ñu ne wa man laa jamaa lahu laa maarifata la koo xam ne it du gis ne lépp lenn la mbindeef ak aji bind amu fi ñu ne kooka it kon su boobaa nekkut ku xam yàlla cheikh bi mu ne ànd ak ne ñaari sëriñ yi di Qushayri ak Sharif al Jurjaani ànd ak ne dañoo gis ñoom ñaar ne al farqu ak jamcu faawu nit ki boole wante ko waaye loolu étape rek la am na fooy àgg da ngay génn étape yooyu yëpp nag su ko defee nga daal di teer nag fa jamcu nga xam ne da ngay gis ne àdduna bi lépp lenn la teqale diggante mbindeef ak aji bind amu fi kon farq moom di teqale ne mbindeef am na aji bind am na loolu étape rek la waaye bu yàggee da ngay mujje rek daa di jàpp ne lépp jamu rek la mu ne lii nag di jamul jam'i ci sufiyanke yi nga xam ne dañoo fas lii di waxdatul wujud ñoom kat dañ ne moom maqaama la moo xam ne moo gën a mat te it moo gën a kowee sax jam'u nag mu ne fa inna jam'a al jam'i huwa al istihlaaku bil kulliya wal fanaa'u an siwallah wa huwa al martabatu al ahadiya maanaam jam'ul jam' mooy da ngay jeex takk ci suñ borom tabaraka wa taala daa di seey ba yow nekkatoo fi léegi nga jàpp ne léegi yàlla kese fi ne loo gis rek su boobaa yàlla la soo gisee xaj yàlla la soo gisee golo yàlla la boo gisee mbaam yàlla la moo tax ñu ne loolu mooy martabatul ahadiya mooy martabaab lenn kenn na fi nekk lenn na fi nekk waaw leneen yeneen yëpp ay wax rek la waaye dara amu fi lépp yàlla rek la looloo tax sëriñ bii ñuy wax Cheikh Ali ibn Muhammad Wafa mu def benn taaliq ci waxi abi Yazid ji abu Yazid dafa wax ne dama aj ma gis néeg ba te gisuma boroom néeg bi nee na ma ajaat beneen yoon ma gis néeg ba gisaale boroom néeg ba nee na ma aj ñetti yoon ba ma demee ma gis boroom néeg ba waaye nag gisuma néeg ba wax jooju nga xam ne moom la abu yazid wax ali wafa da ko cee wàññi daa di ne law anna aba yazid arafa alxaqiqata xaqa macrifatiha la anzala kulla cheyin manzilatahu mu ne aba yazid mi la dee ñàkk a xam da ko jàpp rek dëgg-dëgg xamut xaqiqa waaye bu xamoon xaqiqa ni ko noon lu ne daf koy wàccee wàccu waayam nee na ni ko noon du doon fàddu ci moom ne lépp lenn la doontu mu ngi gis sax ay lim waaye ni ko noon it lim du fàddu ci moom su gisee kenn kon moom ñàkk a xam xaqiqa rek moo ko yóbboo loolu nga xam ne ni moom la wax ànd ak nag ne Abu Yazid ku seetlu fii dana gis ne moom mu ngi doon dox ba yegg ci al waxdatul mutlaq mutlaqa wala jamul jam gisatut li nga xam ne ni moom mooy teqale waaye ànd ak loolu yëpp sëriñ bii di ali ibn muhammad wafa da ngeen ni nga xam ne noonu la wax kon nag mbokk yi yegsi nañ fi nga xam ne cheikh bi daf ñuy résumé li nga xam ne moom moo jiitu yëpp doon wax ci xulul ak littihaad ak waxdatul wujud ak seeni xaaj lii nag lu ama am solo la ndax day tënk li paase woon yépp ci gàttal moo tax bu ñu bañu doon bind bi gàtt bu ëpp xëy na dañ ko doon jagleel mu nekk ci benn audio rek ndax ku yële rawit bu ko déggee dana fekk ne moom déglu na yi paase yépp xëy na du ñàkk ñu del siwaat ci beneen yoon incha allah daa di ko arrêté audio boo xam ne benn rek lay doon cheikh bi dafa wax ne min kulli ma sabaqa nastas nastaxlisu maa yëli ci li passé la ñuy mën a segg li nga xam ne moom mooy ñëw bi si njëkk mooy ann kullan min alxululi wal ittihaadi alxaas yaqtadiyaani wujuda shay'ayni fi l asli xalla al aala minhuma fi l adna aw ittahada al adna bil aala nee na ci li passé yëpp si la ñuy gisee lii nga xam ne moom lay bëgg a tudd bu njëkk bi mooy xulul ak littihaadil xaas waxoon nañ littihaadul am ak littihaadul xaas ñoom ñaar day firi ne ñaari mbir moo am benn bi nga xam ne moo gën a kowe moo wàcc ci bi gën a suufee wala bi nga xam ne moom moo gën a suufee moom moo bennoog bi gën a kowe bi maanaa ñi gëm pas-pasu xulul ak littihaad dañoo gëm ne benn borom bi tabaraka wa taala moo am cofeel si jaam bi daa di wàcc ci moom wala jaam bi moom moo am cofeel ci suñ borom dox jëm ci moom ba mujj wàcc ba mujj bennoo ak suñ borom tabaraka wa taala ثانيا أنه بعد الحلول يبقى جوهر كل منهما كما يبقى جوهر الماء وجوهر الكأس إذا صب فيها gannaaw bu xulul amee teewut kenn ku nekk mu ngi am jëmmi boppam ni ki nga xamee ne boo sottee ndox ci biir kaas kaas am na waaye ndox itam am na loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy annahu baada al ittihaad laa yabqa hunaka jawharun mutamayizun an jawharin kama laa yabqa almaau in kama laa yabqa almaau maan inda al ixtilaati bi laban su fekkee nag ne littihaad nag moo ñëw foofa moom benn jëmm bi day seey ci biir beneen bi ba dootul amati waa jëmm ji dootul amati lenn rek a fay des ni ki nga xamee ne ndox bu jaxasoowee ak soow léegi day mujj nekk lenn kenn du leen mën a ràññee wala di leen xàmmee wala nga leen di tuddee ñaari jëmm ñeenteel bi mooy ann kullan min alxululi wal ittihaadi aqidatu nasraniya dabbat ila suufiya mooy ñaari pas-pas yi di xulul ak littihaad pas-pas la boo xam ne ca diina ya nekku diina lislaam ca la jógee daa di dugg ci biir tasawuf juróomeel bi ann al qawla bi waxdati al wujudi yanfi wujuda siwa llahi aslan maanaam waxdatul wujud day dàq amul leneen lu dul yàlla nanguwuñ ne dara am na dañ naan lu li am yépp lenn la te mooy yàlla wa huwa fariqun jawhariyun baynaha wa bayna alxululi wal ittihaadi alxaas loolu nag teqale la boo xam ne bu am solo la diggante xulul ak littihaad littihaadi alxaas ndax xulul ak littihaadi alxaas ñoom nangu nañ yàlla am na nangu nañ leneen am na waaye dañ ne daa bennoo moo am seen diggante ba gën a kowe dafa wàcc ci bi gën a suufe wala bi gën a suufe bennoo ak bi nga xam ne moom moo gën a kowe kon ñoom nangu nañ ne ñaar ñu ngi fi amma waxdatul wujud ñoom nanguwuñ loolu moom dañ ne rek lépp yàlla la leneen dafee nekkut lu dul yàlla juróom-benneel bi ann al ittihaad al aam taabirun an waxdati al wujud mooy ne littihaadul aam li muy tekki dëgg-dëgg rek mooy waxdatul wujud te dëgg-dëggam mooy dara amu fi lu dul borom bi tabaraka wa taala lépp loo gis rek yàlla la loola it dafay teqale diggante xulul ak littihaadil xaas daf leen di ràññale ba tey juróom-ñaareel bi mooy ann tawxida wal maarifa inda haulaa suufiya ibaratun an waxdati l wujud mu ne nag tawxid ak maarifa su ko sufiyanke yi fas waxdatul wujud di wax yëgal ne waxuñ dara lu mooy seen waxdatul wujud bi moom la ñuy wax waaye du tawxid bi nga xam ne mooy tawxid bi sax ci alquran ak sunna wala maarifa gi nga xam ne moo sax ci alquran ak sunna juróom-ñetteel bi أن ذلك هو السبب في كونهم يكتمون توحيدهم ومعارفهم خوفا من السيف ومن النقد نينا لولو تخنا كم يوم سين توحيد بي ني وخني اك معرفه بي wuutee na ak bi nekk ci alquran ak sunna moo tax dañ koy nëbb ngir ragal jaasi sharia ak ragal ku leen critiquer moo tax sa seen biit kër comme ni passé woon si xissatu junayd ba sa seen biit kër lañ koy waxtaanee gannaaw tëj buntu yaag yu mel noonu yépp ñuy def ngir bañ ñi nga xam ne ñooy ñooñ sharia di dégg seen wax jooja di atte si ñoom atte lislaam juróom-ñeenteel bi أن الفرق والجمع وجمع الجمع مصطلحات دائرة بين الإيمان بوحدة الوجود وعدمه نينا بعد ييغا خامني موي فرقوك جمعوك جمع الجمع اي بات رك لا يو خامني دا فاي وور رك سي ديغنتي وحدة الوجود اك ñaka nek ci وحدة الوجود su ko defee nag yi nga xam ne moo nekk ci biir waxdatul wujud ñu di ko jëfandikoo ci ay baat jàppuñ ne nit ki dafay toog ci maqaama boobu rek waaye dañoo gëm rek ne day dox te fa muy wutali te jëm fa dëgg-dëgg mooy jamul jame yi daa di dem ba nga xam ne daal day yegg ci martaba boo xam ne danaan lépp yàlla la amatul dara loo xam ne lu fi am waaye li am yëpp mooy yàlla subhanahu wa taala kon incha allah foofu la ñuy taxawandi ba beneen xalqa incha allah su ko defee daañ dugg si mabxasu thaani nga xam ne mooy taxqiqu ann hadihi almuctaqadat tuaddi ila natijatin waxida wa hiya taaliu lmaxluq maanaam résultat wu pas-pas yi yëpp du dara lu mooy bëgg a yàllal doom aadama rek bëgg a yàllal mbindiif foofa rek la mbir mi di daanu ji wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته